bala kese radio telen de kese dilen nga ya tele rek ngay baru bu la wóoru aha kese nah lagi Senegal dafa mel ni at mu bees rek ñu créé wax bu ay wax yu jóge ci biti daaj sa bunti nekk daaj sa parentèle fekk la ba di sa biir ab dof kenn dina ko ya mom jàng yi ci nga bokk kay lañ ko wara wax mo waral suñu biir rew ñi yef fi ab client bo xamanteni kenn xamul fuñu koy yakale te raxas bu upp kat dafay fekk ndab ndax gannaaw ba suñu borom aramalé pétaw nga di def ba pare foo kàccee di ko waatee su moom suñu borom lii nag di niroog kokkali booy def jëmale ko suñu boroom waaye nag dama leen bàyyi yéen ngeen déglu ko ndax kat tungu ne du teew ñuy nataal gaa ñi à vous de juger. Oh. déet Salvé suñu kilifa yi moom bu leen boole seen i pétaw. waaw ñoom laa jóg nga tiwaawoon yow waay waay waay bàyyi ma yow man alaaji maa day jóg fii. ah du génn suma kër. dama ko dogg ci la ilaha illallah muhammad rasulullah Serigne Touba di jóg suma kër Seydi Hadj Malick dafay ñëw fii Serigne Babacar dafi génn. fii si néeg bi dogg naa ko ci la ilaha illallah muhammad rasulullah. ma taalibe Serigne Touba laa. gis nga Serigne Babacar jaxal dogg naa ko ci la ilaha illallah muhammad rasulullah. gis Seydi Hadj Malick waaye yow yow yow boo ma xoolee yàlla ah, waaye. li may wax nii nag ndigal laa ko teg ndax man bu ma def dara lu ma am ndigal seen Cheikh Fémou Bassirou Mbacké di porte parole xalifa général des moo ma jox ndigal pour ma wax ci sama kàddu di ci jóg moo jox ndigal dama wax ci te booy wax aussi na nga xamal ne continuer di am jàmm buy waxtu ni ci génnee sëñ bu mag bi ba mu set bu ko def leneen ñi ko war a faj dina ko fa insha taala ci ko ci kër gi kon ñun man su ma sax du ma laal ci kàttanu ndax bu baax ku ci nelaw fàtte loo ay redi maa ngi lay waatal ci yàlla ñu wax ñu dëgg gisuñu dara nit mënuloo umpale aw turam xamoo ndeyam xamoo baayam ay tën lu dee nga war sànni gis naa la def naa ni sama yaay sama waaye maa ngi ci yàlla ne maa ngi waxal ku bokk ci Sëñ te Sëñ Tuubaa ñor la ak ñu ak Sëñ Tuubaa maa ngi waxaalal képp koo xam ne maam El Hadj Malick saf na ak nga bokk ci moom mbugal nga neex la maa ngi lay waaxal ci yàlla ne Serigne Touba alaaji Mali ak ku mel ni moom ña nga bar sax ki yàlla wax ne dana dégg si mooy yom tala Isa ñëwagul kenn ku am tedd nga koo xam ne kii di nga faatu nit waat ca barsàq ñëwaat dëkk dëkk te dal ah te damaa defe ne Serigne Touba li mu liggéey ci Touba ji bu ñëwee ba kër Cheikh Ibrahima Ndao Ndao bala moo dem dana jaara Touba ne leen dama fee ñëwoon am de te damaa defe nii sëñ Touba du ñëw amul fenn fu muy dali lu mooy dem dali kër Cheikh Ibrahima Ndao alaaji Maalik noonu keneen noonu tiwaawoon ngeen lam fa liggéey ak ñu baax ñoom fa teg kon bu boobaa dinañ fa yëpp yëpp de ñooñu sax jëral ñoom ñoom fi baral eh, Cheikh Ibrahima Ndao leen to waxuma la fu toll ni alaaji ak baaxam nga mu baaxoon nga xamne malu maanduteem la nga xam ne borom xam-xam ba borom borom borom borom defarkatu nit ba man mën na la aisha hey man mën na ko wax soxna aisha di num toll soxna yonent bi dafa am taxaway dafa muru zajjul julli mën la wax ni muy def man waxuma la lu ndaw la lu rëy la la wax yonent bi njoolu dafa yem yonent bi njoolu dafa yem te man bi ko gis ci asamaan si lay mu am ko ko loxo bii lëngu ko nii keneen ki lëng ko fii ñuy wàcc ba ñëw ci man ma yore liir bu bees tàq dañ maa ngénte tey ci ëllëg sa laa génn dogu naa ko ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah damaa woor mhm. bu ma dee sama pax laay dugg yàlla bu may mbugal man lay mbugal yàlla bu may jéggal man lay jéggal du moom moom may jégg kon xuli xaq lañ wax wala kaana mu ran mhm. yàlla moom ma tiim yeneen dafa wàcc ba ñëw ba jege ma maag suma doom ñaanal muhammad tamit dal suma dëng ci rasulillah dal suma dënn kon du ma weddi voilà d'accord lakum diinukum wala yeddi nii rek ah, waaw gis naa ko te mënoo ni waxu ko gis naa ko kon li mu wax gis naa yeneen bi mu ne fi ne yonent bi njoolul yonent bi dafay yem njoolul soxna Aïcha dafa am taxawaay waaw Salma Salma Salma ñu déglu ko léegi ñu déglu ko. ma ne yàlla li saaga ndey te dëjëwoon mbay laa wax. i moo waay subhanallah lazim. wala laa wax te dëjëwoon mbay. moo. te dëjëwoon mbay laa wax. yow ki lan yaakaar seen doon doon mbay man moo woy ma ne yéen. lii nag gaañ yi day firndeel ni rek hôpital Fann moom ñu feebar ñaa fa nekk waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi wasalaam.